ngeen jëf salaamaaleykum amee internet jelli bi amaan mbégte ak contentement bu baax a baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen nuyu leen kilifa diine nuyu kilifa àddu nuyu njabootu làmb yëpp dinañ dem ba ci seen bopp waaye duñ fàtt sax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi ñu bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñu génn fa te leen fa dugaloon ñu bañ cee delluwaat waaye itam di ñaanalaat bu baax a baax baax ñi nga xamante ne dañoo génn àdduna di ñaanal tam kenn ki nga xamante ci njabootu làmb ci làmb la bokk muy Ada Fass ñu koy ñaanal baax a baax yéen bi yàlla na oyof aada yàlla na génnaat bu baax bi ndax aada aada borom ndakaaru la waa li yi di wax rek nit nit rek moo dul juum te xëj na tamit dafa juum ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a ñaan njabootu làmb ñu taxaw ko bu baax a baax ba fi mu nekk mu génn fa ndax foofu du place am waaye nag dañoo jëmoon ci combat bi nga xamante ne mooy le 18 juin ñu ànd ci ki nga xamante ne mooy Iblaye production combat ba gis nga ñu jékki-jékki rek ñu ne combat dafa yàqu jusqu'à nouvel ordre waxaguñ nag lan moo tax lan moo tax combat bi yàqu waaye nag xale yi nekkoon nañ ci préparer préparation bu métti ndax combat nga préparé ko mu métti lool lool lool nga toog ñaari fan ñu ne la combat bi yàqu na métti na lool lool ndax combat ci biir combat ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour ak Mor Kankam combat bu neex ki nga xamante ne mooy Anaconda ak Alliance Birame combat bu neex a neex waaye nee naa la Patisen bi nga xamante ne doom benn baraag bi mu ci woonoon daje ki nga xamante ne mooy Ndiaka Euro doomu Cambérène bi ki nga xamante ne rakk la ci biir bis mi waaye nag Petit G woon naa ko mënuma da koy defal bagage waaye nag gis nga waaw ko ci nekk ñu tëkkante combat bu neex a neex a neex la waroon doon jaano pexeem nag yàlla dogoom Ibulaay ñu ngi koy bu baax a baax a baax di masaw mbër yëpp amoon combat bu baax a baax a baax ñu ngi leen masaw bu baax waaye dañuy jox champion bu nuyoo su nuyoo pare ñu laaj ko combat bi préparation bi nan la fa tëddee woon ak combat bi mu déggee ni mu yàqoo ak moom a digganteem ak supporter am yi Petit G nuyu na. waaw motu auzu bilaahi bismillah. dañuy sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax rawatina waa Malika fi ñu dëkk di nuyu ñëpp rawatina booy may àndal tout temps kii nii yaa ma gis ñoom moo ma fekkal di nuyu baax a baax avant tout ñoom laay bëggee alu Papa Naar ñëpp Papa Moustapha Souleymane Ndiouga booy bàyyi ma kenn taala bira di ko bëggee bu baax ak booy ñoom moom Cheikh Pa Demba Ouz ñoo gaa yëpp jàpp na si làmb ji préparé ànd ak ñoom di préparé làmb ji ak waa Malika yëpp ak waa Touba Gassami di leen nuyu bu baax a baax Papis Mansour góor gi naar Cheikh Ndiop Moussa Ciss ñoom ñëpp gis nañu taxawee si làmb ak waa garage waa Citra waa Old waa Touba garage yëpp jàpp na si làmb ji ku si mel na Père Max bu baax barki démb jàpp la si làmb ji moom xamagul sax làmb ji yàqu na sant moom tamit bu baax a baax a baax ak ku si mel ne Al Diop borom Old bi ñëpp daal di nekk ñoom Badji dem. Malika Bese ñoom ñëpp a jàpp si làmb ji mooy loolu làmb ji daal ñëpp jàpp na si ak waa Malika ñëpp ak sama waa écrit sama kosu mbel Bamba ñoom Boy Malika ñoom Unja xam nga ñoom Cargo ñoom Mbës Cric gaa jàpp na si làmb ji waa Malika yëpp ma seen fay quoi di ak waa Gàddaay ñoom ñëpp préparé nañ làmb ji waa Alba Ñaax waa Malika ñëpp baa ma kenn waala waala yëpp di nuyu sama mbokk waala waala yëpp tamit ñoom ñëpp tamit ay seen si làmb jàpp si mais gis nga lu yàlla def jaanam pexeem yàlla ak dogalam xëy na tamit ni la waroon demee ñun xam nga yàq mooy loolu. mais ci toll. waaw combat bi préparé nañ ko ni ko bokk man ak booy gis nii booy ndaw yi ngay gis nii ñoom office Alioune Naar waa Demba moom Cheikh man ak ñooñu ñoo préparé nañ booy yi ngay gis nii ñoom laa am ñoo samay autorité ñoo samay lépp. di leen sant bu baax a baax tamit booy yi nii de booy ma leen sant bu baax ndax booy na dañoo nekk booy mu neex ndax dañoo gëm seen bopp. Euh, boo ñëwee si koñ bi doo leen fekk ñu ngi dem xëy door waar loolu loolu tamit nekk ma lu neex suñ ñoom mag ñëpp ñëw topp leen nii ndax. ndax tey ji bu ñu la nekk ci koñ li xëyoo gontoo kër gu nekk nga sukk fa kër gu nekk nga bëgg ce que ñoom tamit dinañ am jom boobu noonu. waaw loolu tamit dëgg la ñoom tamit xam nga rek xale bu nangoo moom gaan loolu mën na koo am ñoom tamit dañoo ñëw jël jox ko cër kon booy jox ma cër moo tax booy boobu moo sox dara dafa ma jox la kon dama leen sant bu baax a baax a baax amoo seen fay daal mooy loolu nekk ñu dañu jóg waar nekku lamb yàq leen dara ñu seen waar bay seen waar daal am mooy loolu. combat bi taxawee ñaata séance nga daan def par jour. combat mu taxawee trois séances laa daan dóor dama naan yow quatre heures dem aro ba dix heures nga dem ma boo ñëwee ngoon six heures nga am kon dóor ñetti nekk lu métti paa bi taxawee waaw ba mu jege seen ak moom ñuy dóor matin ak soir lii bi rek soir bi. ñu gis ni combat bi ne dafa mel ne dañ cee yokk poids la dañ laa wax ne mbër yi moo toll wala lan. non billaahi laa ma jeexal laaj rek billaahi gaa yi dafa jeexal dama si tegoon jeexal ndax ku ma bëri xam dafa bëri wax français la français bu ñuul bi. mooy loolu nee na français bu ñuul la mais moom français bu xees la. moo bi dégg ma de kooku day xaar du dara. dafa am ci lu mu jóge woon mun na ci yow la koy fayoo ko abbi dina prime mu dox si yow xeex mu dox sa kaw xeex ak yow xeex bu métti. billaay wallaay taalaay. dafa am si lu mu jóge ñëw di wut yoon. dafa xamul bu laajte woon di jaar si man. fii du baax. billaay wallaay di ko wax ne rek. waa am na sens nag mu wërsëgu tan laam xam naa ni. Eh. moom moo tax laam ji amul. Eh. incha allah wërsëgu tan ah, laam bila njagooru du man ak mom billaah man ak moom bokk ñu yoon sax moom tax moom tax na ànd nañu trois séances de man leneen la tax ma ànd mais du moom ndax njagooru moom foog nga am la wax ak moom ndax combat bi day am bii moom day am njaga xale baa ngi na ak Malika ah ñëpp ñuy naa. maa fay matu. maa bu baax. waaw dinaa ma mer kay waaw dama yeewu baa ñu ne ma combat du njaga euro dóor yu métti yi nga bëggoon dóor tey oh, yàlla jàppale na ko kii yàlla njaga euro xale boobu ngeen daje ah kooku français la di nga doon daan ba pare xolal jëndal ko paquet rosa rosa kooku am na chance dafa ñaan waajur billaahi wallaahi taala tey tey lu mu métti dama yew ñu ne ma combat bi yàqu na ak ni ma ko doon préparer combat dama jaral lu nekk. heure bi daanoon naa ko ba ñëw toog di nan caayan la la wax di zungale. <laughs> joy yeen xam ngeen xali cambre non xali cambre tangul mu am ci lu mu tangul tangul tangul ci yeen la koy fayeko suñu bëtt tagu ñu ko sax ci mo barki que yàlla. suñu bëtt ñu nga tek ci ki magam bi bébé bis bi. Eh. suñ ko jàppal ñu xam ni du mbeur billahi kay daan jël magam loolu day am force ah. force day am. ma ñëw ci côté bi salaam. maaleykum maa ngi fi rek. maa ngi si jàmm ba. dinañ triste sax. na combat bi moom. yaa ngi dégg woyu Baye Mass boobu. bisu waroon neex la. jaay non tey dafa waroon neex. barke Yàlla heure yi waroon na fekk ñu dem ba ñëw. nañ ba pare. tiseet yi dañ koo mujj sol combat ñëwaat day defaraat ñun ñun xola ñun duñu wax moom alwaxaala ñun Petit ku dul moom alaw ñu la dañuy xëy di entraînement te moom taxuñoo jub magam jooju xooma ba bis la taxuñoo jub ñu fu Balla Gaye moo loo toll après foofu lay toll koron bi xola koron bi ñaar at laa la mooy ñëw foos Petit kese ku ko toppul faam nga ma wax waaw waaw waaw waaw déggal li déggal li lii fii rek la am Malika waaw waaw ah. ma ñëw. am policier kese la aje Madi. ci loonee. ah Madi maa ngi maa ngi. mais xanaa géej nga jógee. waaw maa laa jógee nag. waaw waaw maa ngi ni maa rob baax. Ah. billahi walaay talaay di sant ñëpp bëgg ñëpp. waaw di sant policier bu baax a baax di sant gars yi mafia bi. waaw ay yota Madi di la sant bu baax a baax ñu policier mooy ñor waaw. Barke Serigne Touba projet kese. mais Ndiago waroon nee na heure bi yéen da ngeen waroon fekk ngeen di jooy ndeysaan di ñëw. non Barke Serigne Touba xam nga rek mooy yow mooy mbër am loo xam waroon ma laa laaj projet ak Ndiago nu ko lamb. Ah. war eh. wa taala. ma ma tey fii yëpp jéeg la. man xam moo métti muy lan xam xam nga gars yi jug si àll bi ñëw fii di gars fi la yaan mais mais ñu fi lañ dëgg ñu suñu neexee ci sax la ñuy sonn dugg dama entraîné ñëwaat toog te ñoom day jël xaw ma séance de lañ joxam quatre vingt dox dox bee bëgg te ñun dañuy sol ci sax doxandu fee dem entraîné ñu misuwaat ñëpp ñu waaw yow waaw yow Ndiaye Aura kii du lamb yow petit champion la barki Ahmadou Bamba billaa wala wa taala yi non force la barki alxuraan ga force la ma police police gars yi. war na Serigne Touba mu yabuñu benn yoon. waaw bu waaye bu xeexee mu neex bu bëree mu neex. te Ndiaye du lamb. parce que Serigne Touba. mooy ñoom fii daal moom loo wax an an daal loo mën a wax. Ah. police mooy ñor. te xanaa doo gaay naan. Ah. loolu. lii fii rek <laughs> <laughs> maaleykum salaam. waaw nan la. ñu si jaam bu baax. waaw pare fépp billaahi defar si tiset. pare lépp moom Ndiaga day xaar Ndiaga wax ko deux ans deux noo fiim noo faat noo aaya noo ku si suñu dawse si ñu kaw ba doon xool ba faaw. cotisé kase. billaahi. Ndiaga day xaar de. tapet la. ñama lu mu wax billaahi. wiiri wiiri jaar daare. lu mu gën salaam. al ziar nice yow day xaar kau kaa xaw bi pétise day xaar billaa walaay barki yàlla oh ñoo ko mën dañu rek mën sax ñu si gaay jauh orang du dossier njaw oro maa moom dama ko maye tànk dama daan xalaatu ko kooku soo yàlla du ko porté jàppoon nga xam du bànni ñoo ko mën fuuf du waa koñ wër na ñu naan la produisé du dossier du dossier produisé dossier la de te dafa ko fanaanoo mer de. ñoom booy xam nañ ni mu demee man Ndiago euro su ma toogee fii sax naan moom laay entraîné sax damaa yeb booy nii yow matu gis nga Ndiago euro bis ma ñëwoon ñu koy constaté daanaale. léegi bépp bés ma. kos ak ay kosam. mais abis fu la ngeen dalante. bu dalee sama kaw daanu. matu billaay wallaay lu ma liggéey combat kaw daanu. léegi woon xaalis mu ko waroon daal. billaay walaay boo bis mi dëgg ma de ñagor làmb ji li mu yàqoon ni ma tax rek sonal fin fin sonal bi bépp bis mi ñëw jëlee ko remas ma jàpp ko moom bépp bis mi ñëw jël billaay walaay la laa bëggoon yow loolu yomb la de ñagor dëgg ma de suma ba arbi ne problème sama daan ko bu dara sama kam billaay walaay taalaay xol mo ko du mën a sax billahi zastura ala soxlo won billahi wala kan nga ne bu zastura bu jamu gën bu may deg bu baax ñu ngi daja diine ak fépp mo xamna ni mom la soxlo mo xamna ko bu baax billahi wala zastura mu mo le ma do ma da man gis na man lamb ah fam ba bu déggu ma tamit li may sax waneegu ma sama sama bëre waneegu ma dara ndax nu mu demee la ko waa mu dégg ma ta laa bëggoon jël daan ko doo ko ñëw jàmm nga ñu si kaw ñu si kaw nag moom dama wax bëggoon tur ah. mais nag nag gestion dama jël ma daan ko ba pare billaay kooku boole ma boole ma boole a ko si sama des moom boole ma ko si billaay walaay ni may jàppee xalaat eh, léegi def ñëgoro moom xam na loolu bu baax ah. billaay yaa ngi gis mooy yaa ngi bu nekk fee ñu ko BBC. ah waaw kooku sax bu jàppee njaboot koy daan. kon yéen xar bu ñu tuddee ko xar boobu ko. Oh, xale yi di ko daan waaye nag dina leer ndax nee nañ après tabaski. làmb yëpp dina leer ñu doon bay bay lu yëpp dinañ génn. tànk suuf jaan si suuf yàgg yàgg dinañ daje. ngeen daje dinañ te force day jooy. Eh. day génnee jooy. Petit Zé ak ay bu ñu xëyee ñu ne la combat bi yàqu na ñun la def waa man moom billaahi man ma ma nee mën ji yàqu na man moom booyee sax laa njëkk xalaat ndeysaan man moom bu dee mën a mën rek coow ko quoi man mën naa tënk loolu quoi méttiwul mais booyee xam ñoo toog sama ginnaaw sonn si waaw defar tiset waaye booy nga gis yëpp seen tiset yi quinze mille lañ ko defar ñuy douze mille yow tamit ñu ji yàqu seen xaalis daf ko si yow jàppale la ah na sant yàlla bu baax xëy tamit dafa yàlla defal jàmm Sénégal ma daan jagoro isa lan ngay wax Ousmane Sonko ak Macky ñam gaan xam nga rek Ousmane Sonko Macky Sall laay waxal Macky waaw mooy jiitu réew mi xam nga moom mooy jiitu réew mi kon jàmm bu amee si dëkk bi moom la bu ñàkkee jàmm moom la ndax bu nekkee njit

waaw suñu réewu gaan réew mi nag réewu ñëpp la quoi ñu ngi ko defar mu rafet quoi waaw mooy loolu. tey ñu ñëw ci làmb ki nga xamante ne mooy doomu Fass bi di Ada Fass yoon teg ko loxo ndax kenn xamul yàlla rek ñoo xam mais dañ koy ñaanal rek lan ngay wax ci moom. waaw Ada Fass waaw wax ne rek gaan moom ndaw la quoi. billaay xëy na tamit moom moom moom Ada Fass moom lu topp si ginnaaw sax xam ko xëy na tamit moom moo koy jural lii lépp sax barke yàlla xam nga dañ naan dañ naan siiw gaan mooy loolu waaw du jàmmi boroom mu topp si ginnaaw xëy na xëy na tamit xamu ko moo tax tey jii fu nekk mu fay teg tànkam xëy na si ginnaaw mu génne lu bëri dina di wax ne Ada Fass xale la dafa nekk si yoonam commencé lekk si yi lekk ko si dara xam nga nañ ko bàyyi xale bu nekk si yoonam la ko jégal te yàlla tax làmb xam nga jeunesse bi ñëpp topp ko lu muy lu ba ñëpp balagee di da koy duy isaat parce que man làmb ju ko raw mu koy duy isaat ñëpp topp ko waaw kon damay wax waaw di ko ñaanal yàlla rek yàlla dafa ko jàmm gars yi jégal ko dañ xam ne dafa jum waaw mooy loolu. barki yàlla. lan ngay wax ñi nga xamante ne ñu jàppoon ci combat bi yëpp doon xaar combat bi ak ñi nga xamante ne ñëwaguñu yaa ñëw ñëwaat. waaw ñu jàpp ñu jàppoon ci combat xam nga waa Touba Gaz tamit dama leen di sant bu baax a baax baax a baax waaw ku si mel ne Père Alioune Diop dafa jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga Père Alioune Diop jàpp na si Max jàpp na si làmb yi bu baax a baax a baax. jàpp na si làmb ji bu baax dem jàpp na si làmb bu baax ñoom buuba ñoom ñëpp a jàpp si làmb ji Touba gaz yëpp kii ñu tuddati madame Thiam jàpp si làmb ji ñoom ñabali xam nga madame Badiane nag moom dama koy sant bu baax a baax a baax moo tamit ku jàpp si làmb ji la xam nga ak madame Coulibaly jàpp na si làmb bu baax a baax a baax waa Touba gaz amoo seen fay waa centre commercial yooyu maa ngi bëggee ñëpp Touba gaz képp kuy liggéey Touba gaz rek maa ngi lay bëggee jibi sëy borom Touba gaz maa ngi nuyu ñëpp Touba Gaz di leen wax ne waaye borom waaw borom gaz bu sakka borom gaz bu sakka nii lu mu jaayul baaxul waa di leen bëgg bu baax a baax noonu la demee waaw tey tamit de rendre ama sama booyee gaan sama ñaari booy ñoo ñoo génn àdduna ñu ma dëkkee ak Xaadim nga mooy loolu ñoo nekk doon fii di foondoo ñu ak yëpp xam nga tey ñu génn àdduna moo tax tey ma ñëw solti sa tam di wane gaan àdduna nii ko quoi lu moom Abdou doon wax rek julli day kontaan si lu yàlla def. li mu def nii nag moom dañuy te waaw mooy loolu dañ koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana ndax nit bu gën a àndal lenn kese lañ mën lañ ko mënal muy muy ñaanal ko waaw lu ci mën nag dinañ ko ci def ci kàttanu yàlla suñu borom di leen ñaanal fuñ tëdd yàlla suuf oyof seen kaw incha allah ak képp ku képp ku gën àdduna rek di ko ñaanal di ñaanal tamit ñu nekk ci prison yi yàlla génne leen ndax prison yi métti na trop ak sama ñaari booy ak sama ñaari booy yi ñu jàpp tamit dama leen wax gaan xam nga di la ñaanal di la ñaanal yàlla waaw yàlla tegge leen natt yi muy bas ak amet xam nga ak gars yëpp ñëpp ku nekk si prison daal ñu la ñaanal jàmm ndax mbaar mi yaa ma gën a xam mooy loolu waaw. waaw Matu di ñëpp daal barki yàlla xam nga ñoom Mortala wiyul gaan xam nga ñoom dañuy sonn si làmb yi gaan billaay walaay waaw ba tey tamit gaan maam Cheikh bu baax ñoom jàpp na si làmb yi Pa Demba ak seen waa kër ñoom Père As ñëpp jàpp na si làmb ji wa di leen nuyu bu baax baax baax ñu japp ci lam ji lañ ak eh, waa Touba Gaz ku si mel dama koy santaat naar maa sant bu baax baax musa assis xam nga assis mun sor Papis Abdou gor gi Sëñ xam nga ñam Cheikh Ndiop wa garage wa sant ko musa ba ma ñëpp waa Touba Gaz dama leen sant bu baax ndax xam nga dañuy sant sama lam quoi bilaa walay moy lool diko ko wa di mun sor mom gaan xam nga diko ko mo mo jabaram tamit gaan xam nga jama diko ko bu baax baax lu mu toggul baaxul barki yaala waaw moy lool ay ca nee ngi sant waa Touba gaz bu baax a baax a baax a baax ndax nit ku lay jàppale rek amul lu ñu fayam te ñoom ñu jël seen dërëm ak seen yam nee naa xaalis dafa sax ci xol ki koy joxe rek kooku amul fayam kon nag waa Touba gaz sës rek moo xamante ne defaat nañu ko seen bu amee kon nag gën ngeen ko jàppale bu baax a baax a baax waaye nee naa du ma fi ñëw tamit te du ma euh, tamit euh, ñi nga xamante Bas ak amet ndax nee naa saa yu ma fi rek xale yi dama leen fi daan fekk hmm, dama leen fi daan fekk di wax nag gis na ndogal rek du wees waaw te ay xale lañ ñu gëss waat bu baax a baax a baax ñun ñu parfait te nit dafay juum te ay xale lañ te foofu du seen place foofu noonu du seen place baax a baax ñëpp ñu gaaw fii jógee ñëwaat fii ndax waa koñ bi nee na namm nañ leen bu baax a baax a baax waa koñ bi namm nañ leen bu baax. ah di wax maire suñu maire bi kii Tara Gadiaga ñu ñëw jàppale ñu bu baax ndax bu ñu amee combat fii nii sel naa soo